بسم الإله ينقل قال إني أعوذ بك من شر إني أعوذ بك الله وعمل وكم أعوذ وأن تلك من أبي عظيم وخير من سلم ونعلنا رب العالمين يهدم خلقنا والأرض وأن خطبها كلها قال ينو إنه لا يدم ذلك إنه عمل غير سالم ولا رسول الله عليه الصلاة والسلام إني أعوذ بك أن تكون شحن قال إني أعوذ بك أن تكون مع ذلك وإلى تعمل ما تعمل وكن غازلا قال يا عبد السلام إنه وبركت عليك ولا أمام معكم وما أعوذ بك من عذاب أن تلك من درجة المختار عب المرسلي بعت الله درجات رسلي كل نبي ورسول يتبه خلف وسيلتي هو المتبه أمدنا الماهي ما ما ساء ولسوى ناسا خمن أساء لأحمد المختار ما لم يكن ولا يكون أبدا للممكن جماله يسبي فؤاد رائي ونهجه يخني عن افترائي مد لنا الإيمان والإسلام وأحسنا إحسان لن نلاما يسرو خطي في كل سنة وخيره من قمة مزدزنة لم يخف كون المت والعب إلى لولتي والبيت زاد وإلى لم يخف كون المت والعب إلى رودتي والبيت زاد وإلى وعلى آلي وصحبه وحبل عامل عاسين روفي ما يريده في مكة والمدينة بلا آفة ولا كدر آمين يا رب العالمين وجل آسي أبيات سادا مبلغا يا خادر يا مقتدر إلى البيت لا العرام وإلى المدينة المنورة على ساكن أفضل الصلاة ما تسليم آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم لئن سكرتم لرب كريم واسين خير محبودي سكوري لدى داري وفي البحر والبيدي لرب كريم واسع خير محبود شكوري لدى داري وفي البحر والبيد إلهي حكيمنا في عنزو تفضلي خني ومخن جوه ɗo juuɗuta biidi ilahi hakimunna fi on zu tafadduli wa muhunin jo ɗo juuɗuta biidi nafaani al ahda haturan wa sahali مرامي بلا كد وديخ وتسديد سكوري له بالخل بوالجسم سرمدا ولجاد بي بدلا وتسديدي كفاني في داري ni kawnu ilaahi li bi lutfin wa juudin fay doo xayra mahduudi rajaayi ladal muxni rajaa'un muhaqqaqun loo sirtu abdan wa wa rabbi wa mawduudi تعالى كريما نيان خادني الله بلطف وجود سهن خير محدود ما بي الوهى بهبي سوى الذي ليختار في داري من كل محسود ليختار هاب دو خادم النبي وزعي كون الله لي وحو محسودي أكون له عبدا خديما لعبده وليراد أعدائي بخير مكمودي سيدي يا خها روى النصر قلدا ووجي لي الخيرات يا خير مسمودي يا زاري يا كوني هاب دكم خادما له بقلبي وجسمي ما mida waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di nuyu Samat Diop di ko sant ak waa dëkkam ñëpp ñun waa kër maam Cheikh Ibrahima Sarr ñun ñoo di sant sant ko am tàmbali waaye amul yemukaay di sant Samat Diop lu baree bare ndax kër maam Cheikh Ibrahima Sarr gi rek a ko ñor wax ko waa kër maam Cheikh Ibrahima Sarr gépp ñu ñëw ci màggal sama Samat Diop gi ci saxaw gi ni muy ñaanal papaam. yàlla na yàlla yokk leeram te taas ñu ci barkeem ci barke Xaadimal Mustafaa di leen di siyaare di leen nuyu te di leen siyaare te di leen xamal ne daayirub sëñ Modou Moustapha Mbacké bi ah Bayal Xadim ci la Cheikh Ibra Sarr sosu ci la màgg ci la dund ci lay wéy waaye Cheikh Ibra ci lan topp moom lan yaakaar àdduna ak àllaaxira Samat Diop nag bis bi muy defal baayam baayam ak Cheikh Fallou Sarr ay doomi ndey lañu maam soxna Diop ay maamam mu wëlbatiku wëlbatiku mat-mat gu tol ne mu bis bi mu taxawal ko di bayam di ko defal ñi ñaan ci kattanu serigne bi yalla nañ ko teru mak ndax sama kan man na lim doon ndax lepp lu ko bayam defaloon jangal ko xamal ko rek fas na ko yene jefandiko mi koy ci taaliba diko di ko ci mag diko jefandiko ko man mi taxaw di wax nak maa yaay ma bokk benn baay mortala ñang sa bay mo jëk Fallou ko tuuti la kon yaaka na ni bis bu nu laajte ana bi ko commencé ci juróom benn at lañ ko commencé di wàcce kamil waaye ñeenti at at mu ci nekk dañ koy jàng xaadim gi koy jàng am nañ ci yokkute daal amusu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim bokki taalibe bi ñu ngi leen di nuyu te ñu bëgg a dimbalante tuuti rek ci li ñu fi dajale ndax fi sëñ Maamun génn rek laay bàyyee kenn ku nekk jàpp ne sa bopp la fi indi lan la fi lan la la fi indee ak lan lan nu fi bàyyee ak li nu fi indee ndax sëñ Saliou Mbacke barki démb daf noo waxoon ne suñ borom ku mat di fàttaliku la ndax képp ko fàtte di yërmandeem a tax nga fàtte ko waaye mi ngi yoo xam ne ku ko séqal sa xel du dem ci kurul moom kon nag daje bi ñu fi daje tey te ngërëmul yàlla rek tax lu ko jóg ak lu ñu dimbali tey ak ëllëg sëriñ Touba sëriñ Mbay Jaxate nee na taalif na mool yu feesi taax te khalimam du joom du jaax te am xelam du gag du nax du fàttalëf ci xarnu bi lepp luñu wara a adina ak alakhirah ñi ngi ko yor kon jamono buñ tollu ñu fateliku li señ bi doon sonu ak lim nu bëggaloon señ bay jaxata day wax ne ak dundu yombut lu yombul ëpp na foyeef na ngay waxu yiwa kay diglé ka def ak nun ñi ngi ni di magal buñ ne am na ñoo xam ngi ci hôpital bi li ñi ñaan seen kër kon ak dundu yombul lu yombul ëpp na foye leuf na ngay waxu yiwa koy diglé ko def ak a fas li nuy gàllankoor nag mooy ñu bind motax téré yi am ñuy waxtaan di fàttaliku kenn ku nekk sa bop serigne Touba daan yar-yar bo xam lam lay japp njàng mom lay jangal bu lako ko bo nekké nekkee fu ak bo nekké fu wéttaliku ñoo yem loolu la tax muy mëna am ki wax ak yow lim lay wax dang koy xam serigne Mbay jaxata lañu serigne Touba muni wax wolof ci li namp nun wax nak wolof yi dañu wax ne bala neex ki ngay waxal day xam li nga koy wax ba nopi tam bu ko xame ba nopi gem li koy wax wax ji la sëriñ bi wax dang ko xam dang ko gem sëriñ Mbay jaxata neena fatte ka bon fatte de rek kay waral ni ta bew budul ko nak fatte de ken dotu rewa ka bew budul ko nak fatte de ken dotu am lu ko saf ken dotu am lu ko soofit waral ku ne sew koo xam ne xam nga ne dee ngi ñëw te faaw mu ñëw ne nem rek ko war ak jéem a daw yëfi ndaw tuubug mooy ak yaru moo war képp koo mën a gis dee gaa ngi dàqe te day jot ñëpp kenn du ko raw lëf mët la tiisoo lu dul mooy yàlla kii juru ay lëf mët la bëggit lu dul yiw jiw dong kiy juru yiw sëriñ bay jaxate nee na loo wér wérit won ko bis loo tedd tedd torox loo man manit télébis loo wax waxit ne selaw loo sant sant ne mbas loo maare maare ne cem loo jaglu jaglu tawat àdduna yeewu ci yow bul bëgg nag lu fi nekkul bëgg loola du mbir adduna kër la gu ñuy dox jëm ca kër ga ca kaw addina kër la gu ñuy jaamoo ko sonne bu wér àllaaxiraa di këru xéewal lu bon du fa ñëw koo xam ne nekk na ci jub tey ji ba dee ci bu wér bu ëllëgee ñëpp ñeekoo ñeete bokk ko naw kër gi deful kër gu ñuy teddee ko tëdd di wéy ku man di fàttee ka bew bul fàtte mukk ka bew sëriñ bay jaxat nee na bari alal taxul a gën néewi alal taxul la bon lay tax nit ay gën a ka bon ca xol ba lay nëbboo ko boof daje yu mel nii buñ ko dajee war nañoo fàttaliku suñ bopp la ca gën te gën ci nun tey ëllëg lan moo tax ñu xam ñuy yamante lan mooy tax ñuy xeebante lan moo tax nit di naw boppam lu tax nit di fàtte yàlla lu tax nit di fatte yalla lu tax nit di sàggan ci alakhirah lolou la serigne bi dakul diko ko ku ne kenn ku ne am nga bis bo xamne bu ñewé serigne bay jaxata day wax ne boromi yef dana tagok ay yefum bu rafet boromi jef nak du tagok ay jefum fu mu jëm jef ji nak suñ ko waxé légui day dem ci ab khalis ñepp dañu japp ne khalis rek waye dedet nit ñi daanañ jappulante daanañ dimbulante ci luddul alal ci luddul khalis liñ bëgg wax moy liñu fi dajalé manam dañuy tambul rek dañ koy waat ci nu mu gën a yaatoo nu fexe ba ba rek euh, ñu jëlee fi loo xam ne dañ koy jariñoo ci ndénkaane sëriñ bi ndax ni ma leen ko waxee wax balaa neex kii wax day xam li ngay wax ba noppi gëm ko fii du barab bu ñuy noppaloo du barab bu ñuy taxaloo sëñ Saliou wan nañu ko sëriñ Touba wan nañu ko lii nag ab tàmbali la ñu ngi koy tàmbali fas yéene yàlla nañ ko yàlla àggale dërëjee sëñ Touba ba kenn ku nekk jéego yi ngi fi andi muy ak yokku te yokku nag yaa ngi ko yëge ci sam xel sab xol boo mënee muñ nattu yi mën a sant xéewal yi mën a yaakaar sëriñ bi sa xel dal sa xol sedd xamal la yaa ngi dox booy firfiri ci àdduna ji nga xam ne lii nga xam ne da nga koy denc te du jeex te mënoo ci am lu sam xel du dem ci si yëfi morom loolu boo ci rebee xamal ne noppaloo ko yal nañ ci sëriñ bi defal tey ci bark borom Tuubaa noppalu goo xam ne si dañ koy déparé jëm ak moom te duñ tàggoog moom te cim xel doo nga lay nekk coonab xel moom mënees naa waxtaan ba ñàkk ko coonab yaram yàllaa nu ko binde ku nekk ci àdduna da ngay sonn boo toogee sonn boo tëddee sonn waaye xel mi xalaat loo xam ne boo tëddee sab lal doo noppalu loola moom bu ñu ko waxtaanee yàlla mën na ko woyofal barkeb sëñ Tuubaa yéen lañ sant yàlla di julli ci yonent bi rek di sant Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di fedd suñu kóllëre ci sëñ Abdou Samane mi ci màggal gii muy màggal di ko ñaanal ay waajuram ak i bokkam te it loolu da ko wax rek waaye boo ñëpp la ci boole ndax sëñ abdu Samane ñaan gi yemalee ko ci ndey yemalee ko ci baay yemalee ko ci yóbbu sëriñam yemalee ko ci kenn ndax sëñ Abdou Samad ma wa amma maa yan ko su fi naasi fa yam ko si fi lar moom lay jox ku am njëriñ ci nit ñi da nga da da da nga yàgg ci kaw foofu moom lay doxalee ba tax na màggal gi ñëpp a ci yem ñëpp la yéene yiw ñëpp la yéene tiyaaba yal na nu yàlla ak yéen bi sëñ Tuubaa dugale ba kenn ku nekk am ci looy jàllalee ay ëllëg ñu bañ tàbbi àjjana waxatuma yow kon nu ngi sant bu baax di gërëm bu baax di ñaan yal na ko yàgg yàgg taxaw moo ki bokkam te yal na yàlla jàppandal ñëpp te képp ku fi ñëw lépp loo ittiwoo yal na ko yàlla jàppandal ci barke allahumma kulli karim akrama mën na mën xaar loo takkaram asim la kulli kaan imaani wala asim li sant ma ba jibi sugri bi laa ko farante ko sa a barke bam tuba yéen mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaar di leen nuyu bu baax a baax masaw ci coono yi bis bi li nu fi indi mooy bokk ko borom bis bi muy sunu xarit di sunu wëlëre di sunu mag ñu bokk lépp parce que na kon sunu xol sedd na bu baax a baax ci dikk gin fi dikk ak mbooloo mi nga xam ne fekk nañ ko fi mu ay ñu ay wëlëre di ay xarit te lépp ñoom ñëpp maanaam jukkaam ak pas-pasam moo leen fi indi kon loolu bég nañ ci eh, di feeñal suñu mbégte bu baax a baax ci bis bi nga xam ne waxtu wu nekk eh, day yokk ndax parce que li ko lal mooy dëgg ak taasu ci barke mag ñi ak sonnal leen ak ñaqal leen ak yaakaar ci ñoom ndol leen ba tax na waxtu wu nekk danañ yëg ndolleen bu wér-wér ci bis bi saa bu dikkaatee dañuy gën a yeesaat ndax dañuy yëg ne xam nañ xam ne am nañu ak ndolleen ci waxtu wu jàllee. kon loolu dañuy sawar di ñaan yàlla saa bu jege see daal sunu xel day gën a dal di ñaan yàlla waxtu ñu di ko fekkee eh, di ñaan yàlla sunu borom it eh, kilifa yi nga xam ne ñoo ne suñ kanam suñ borom bàyyi leen fi yokk seen xéewal yokk seen lépp ña nga xam ne ña nag bar soxla moom nii ñu ngi leen fàttaliku suñ borom yokk seen i tawféex yokk seeni i xéewal ñu yàgg ci àdduna di leen ñaanal. suñu xol daal sedd na bu baax a baax ci taxawaay góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen ndax euh, suñu diggante dafa yàgg-yàgg goo xam ne euh, maanaam euh, moo tax sunu xol yi sedd. parce euh, que li ñu bëgg wax lépp mënuñu ko cee wax waaye xanaa di ñaan yàlla suñu borom rek mun nangul ñu ñaan yëpp euh, dimbali ñu ba defal ñu lu koy njort wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin asbillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilah rabbil alamina rahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal lazina bokki jullit yi kenn ku ne ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant muy mag muy gone di jigéen di ndaw taxawaay bi rafet na sedd na sunu xol guy samatit sant nañ ko bu baax ndax taxawaay bi rafet na lool kenn ku ne def na la ci boppam muy jigéen muy mag muy gone kenn ku ne sedd na la cër bam la war a sedd man de yàlla def na ci saxaw gi rek lañ xamante waaye ne jox na ma cër bu mat ndax kër gi lu mu fiy lijjanti lu ne dinaa ko yëg lu cay sama xel mu rafet dinaa ko ko wax ni ko defal ni defal ni xeebul sam xelit nag kooku wet sant naa ko ci bu baax a baax bu loolu jàllee itam ñaan gi bi mu ko tàmbalee di yàggul waaye ne guren gii nag moom alhamdulilah ba mu ko tàmbalee ba tey bu mel ni moom mosu fee amagoon ci saab gis-gis sant nañ ko ci bu baax di ñaan mu yàgg koo def lool gu ñëw dàq ga jàll ñu ngi koy sant bu baax di sant waajuram ma fi jóge bëkk démb soxna ña ko baaxan la daanama ma woo ba ci néeg bi nu wax suñuy wax maa ngi moom ak yàlla képp kër gi luñ fiy liggéey loo ne ci saa loxo lañ ko teg bañ dàmbalee mooloo li ba ceeb du bas mee ci saa loxo lañ ko teg lu muy def lu net ni ma naa nga sant naa ko ci baax mën naa ne ni rek sexaw gi lañu gisantee kon nak nona du ni demé gog wet sant na ko ci bu baakha baakha baax sama xol nak da fess del ba nga xey munuma wax dara waye ma ngi ñaan ci barke ngenn wahab li kullu man taalaqa bi saadatu daimatan ya rabbiya mu mu sëñ Tuubaa wax ci taysiir mu fulal nuko bu baakha baakha baakha baax sant na baax jërëjëf sama xol alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh eh, mbokk jullit yi eh, ñu ngi leen di nuyu di leen siaré tey balu ñëpp àq di bal ñëpp àq eh, di di am mbégte lool ci màggal gi sëñ abdu Samad di defal ay waajuram te di ci boole mbokki jullit yëpp eh, Abdou Samad nag bu defee lii wàcc na ndax li olof yi wax naan ndox fu mu daan boo demee fekk fa tepp tepp Abdou Samad nii mu mel ak lii muy def dama ko jëlee ci waajuram ndax kenn ku ne xam xam xam xam na ne waajuram eh, mbër la woon ci kër sëñ Fallou Sarr. nekkoon na loxob sëñ Fallou saar nekkoon na bëti sëñ Fallou Sarr nekkoon na itam défense sëñ Fallou saar ci lépp kon Abdou Samad euh, nii mu mel ak lii muy def kenn ku ne xam ne ne la euh, euh, lu mu doon la ci waajuram màggal gi nag ñun ñi nga xam ne fekke nañ tàmbali ba bañ koy doog a tàmbali lu ndaw la woon ndax ñu ngi ko doon def ci ñaar fukki fan yi weeru koor ñun ñaa fi daan ñun ñoo fi daan yendu di fi wàcce ay kaamil waaye suñ daan wàcce kaamil ba noppi ñeen ñi sax duñ fi xaar ndogu léegi nag bu ñu demee nag ba mu toll nii ñu di ci rey aw nag di ci rey ay gàtt di ci ay ganaar kon mu ngi màgg waaye lu baax nii rek lay mel ca kanam rek la jëm eh, ñu ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm Eh, te xam ne ñaan gu nangu lay doon ndax képp koo xam ne mu ngi ñaanal sa wayjur na la wóor ne ñaan googu du nangu ndax sallallahu alayhi wasallam nee na ñaan yi du dagg mukk ñaanu wayjur goo doom joo xamante ne wayjuram dafa faatu mu di ko ñaanal ñaan googu nee na du dagg mukk day nangu kon yal na yàlla nangu ñaan yëpp te ñëpp jot ci yool bi te ñun ñi fi nekk itam lii soxna si am wayjur wu góor wi am ko ay nja njabootam am ko ñu nit bu ñu fi jógee ñu am ñu ñu ñaanal yàlla mën na ko yàlla na ko nangu bi jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa yang memahami sekali tentang Aku xawa kenyang kue nanto diggante bu xaw yàgg la de diggante bu yàgg la diggante ñaari taalibe la daal yoo yoo yoo yoo yoo xamante ngir sëñ waa tax sëñ waa tax waaw sa diggante bu xaw a yàgg la waaw daanaka dañoo xaw bokk bu yëngu ndax diggante yi muy yëngu daanaka day yëngoo ca wet gee may def ca wet ga ca des waaw ah, moom day yëngu ci kii may def ca garab yi garab ya man waaw bokkuñu <laughs> bokkuñu li kii sax waaye nag ñoo xaw a bokk waaw ba xam ba tax na itam lu jiitu loolu itam dañoo xamante woon waaw ku baax la sëñ Abdou Samane mi moom daanaka daa xaw a wuj aw turam waaw xaw na baax lool ñu sant bu baax a baax a ba koy sant bu baax ñun waa kër sëñ Mbaye Sarr

ndaar la jóge te mi ngi ñëw ne weesu na jumaa ji jërëjëf kon danañ dégg na inshallah baax na la ko kay inshallah baax na lii lii nee naa fi jàll du mën a xew. li nga wax ak ñoom bala ñu doon déglu am nañu moom mooy ñu doon. mooy incha allah. ليختار في داري من كل محمود ليختار كونها خادما kaddu yi ñu fi sànni de mooy kàddu yi sant yàlla. gën a jébbal jébbal suñu bopp Sëñ Tuubaa walla feddali suñu njébbal rekk lañuy def xam naa bés mel nii liñ fi war a fàttali ci bés bi mooy fàttalu sa bopp rek fàttalu sa bopp nag noonu ay jëmm lañ yoo xam ne yii. ci dëkk bi lañ nekk waa indiwuñ fi suñu bopp ay mag a jaayoon da nga sëñ moom nekk moom di ko liggéeyal ba dara xewagut ñuy dem dem ba jur nu fi jur fi suñu jur suñu waajur jur jur nu fi kon lu mën a xew donte lañ fay dëkk bi lañ juddoo ak fuñ mën a juddoo juddoo ci dëkk ba ci noonu ku nekkee fa mën a judd foofu Tuubaa la ndax ci euh, ba ba ba nga samaam jëbale sëñ Bàmba boppam la bokk ci boppam la bokk ci boppam fu mu nekk ci Tuubaa kon nag bismillah li ñu ci fàttaliku mooy fàttaliku sa bopp fàttaliku sa bopp mooy fàttaliku nga sëriñ bi la ñu doon sëriñ bi du weesul la mag ñi doon bi mag ñi moom lañ gisoon mooy lu baax lañ gisoon di ko wët bëgg sëñ Tuubaa yaakaar ko ci moom jox ko seen bopp bëggatuñ leneen lu muy sëñ bi lu mu bëgg kon nag nan góorgóorlu bu ñu dajee fàttaliku xam loolu rek moo doon suñu yitte mag ña nag bañ bañ jëbee ci sëriñ bi barki bi nga xam sëñ bi doo ko am ba ñi ñi dar sëriñ bi dañ ko am sàkk sëñ bi moom sëñ bi amu ko woon bañ ànd ak sëñ bi gis ñu woon ci kër sëñ Tuuba ak sëñ Mor Anta Sali lañ gisul seen kër bàyyi yàlla rek leen boole woon tey jii nag fi lu nekk amee boo xam ne kenn su ko gis fenn nag nañ góorgóorlu ba lool bu mu nu fàbbi bu mu bu mu nu fàttaloo mukk li ñu defañ di woon wasalaamaaleykum wa rahmatullah tànk yi ñuy dem yëpp yàlla suñu borom def ko. dafa am mbokk nga sama benn jigéen la doom bi daal. waaw. أنت يا خير مسعودي يا زاري يا كوني دكم خادما له بقلبي وجسمي ما مدادي بتسويدي دعني إلى سكر وسكر لكم به mu naan xatta fi minkum bi lutfin wa taswidi nafaytal asaani dafa mel noonu jaxasoo waaye suñ mbay jaxat daf ne bul soxla woon nëf ci duniyaa ji lu dul jëf ku nekk day mujj wéet ay jëfam ci baax loo saytu dem ba ko mbaa sax loola dem bala la baaxee dem te doo ko ba dem koo xam ne nee na murid la mbaa mu fas ko na jóg di déglu wax yi li ma may wax ndax mu làq ngërëm ñu nuyu ñëpp ñu fi fekk eh, tànk yi nag ñu tànk kóllëre rek la eh, sëriñ Abdou Samad Ndiou mi waxoon ma ne yëgal ma bis bi donte la xat na ci man waaye fonk gu ma ko fonk bu baax gu mu baax loolu te am yitte moo tax ñu bàyyi suñu yitte yëpp ñëw eh, ndokkee ci bis bi rek di ko siyaar ñaan yàlla lépp lu ñu fi jàng ci alxuraan ak xasida yàlla na ko yàlla tasaare ci ñëpp taas ñu si ñi ngi koy defal te tam àgg ci ñoom ko sant bu baax di gërëm ñëpp ñu ngi fekkit ñu ngi leen di ziar baax yeneen yàlla mu yàgg ko taxawe ñu yàgg ko fee fekk ci barkib sëñ Touba ñun moom suñu suñu jóg yombul waaye du ndaje mu ne la teew nag waaye bu ñu gisee ne nit ki gis nañ ci moom lu baax rek ak pas-pas bu dëggu loolu moom danañu jaral sol sunu daal la ñëw taasu taasu ca loolu rek muy jiwu yi yaakaar naa ñëw naa fi ay yoon loolu nag ci jëmmam ji la ak xam ne li muy def lu mu teg ci pas-pas la ak dëggu walla walla sunu tànk yi nag maa ngi koy sant di ko gërëm gërëm ñu fi teew ñëpp yàlla yàlla na ko yàgg taxawe te ñëpp te ñu fekke ko ñun ñëpp lépp lu ñu fi ñaan sunu borom nangu ko ci barkeb sëñ Tuubaa jërëjëf asalaamaaleykum. xol yi sedd na bu baax baax. yaakaar yi dolliku na ndax euh, li sëñ Maamun wax léegi rek moo matu bàyyi xel euh, te yéene sëñ Tuubaa sun maam yi toppoon sëñ Tuubaa la leen sëñ Tuubaa ñaagoon ñaag boobee ba léegi day dolliku kon saa bu ñu leen gisee dañu toqamtiku xam ne maanaam da nga li nga xam ne moom la ñu màndaloon waxtu ne ñu ngi koy gën a soxla waaye saa buñ leen séenee day mel ni soxlaatuñ dara kon seen teewaay faj na aji jullit yëpp faj na aji taalibe yëpp dalee ne bis bi yokk na ko kon suñ xol sedd na fekk nga fi suñ kilifa ki nga xam ne moom la ñu ñëpp ñëpp mooy suñu kilifa suñ saar te bés bii eh, ki koy defal léppam ci suñ suñ maam eh, suñ sëriñ saar jasaaka la la la bàyyi ko kon bu ngeen diggee di sëñ Tuubaa fekk ko fi suñ suñu xel gën naa dal suñu yaakaar gën naa dolli ko ñu ñaan sama moom ku seen fan te wéral seen i cër euh, asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh la matlabin fala budda min sukurin bi zikrin wa tajwidi نويت دوام سوق رب الآي خادما بخط لمن خدم تو خير مولودي كروبي وأسخالي وديقي كذبتها بلطف وآكام بديع وتوليد موت الذي قد سا أني منذ أزمني عن القلب يا فتى يا خير محبودي ألا إنني أرجو من الواسع الحقيق بجاي مقفانا سر الحق بالحق هيا الله يا رحمن يا من أخذني فزلي بتسليم على خير من لبى سمام ورا حسري لدى الله في يدي وما رمته من ما لكن خاد بن أني إلهي على خير البرايا محمد أدم سرمدا أسكا صلاة وسلمي مع الأهل والأسى بطرا وردني صريحا إلى توبا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 لك جزاك يا قل إبراهيم مولاي ذا الخير الجزاء ومنى صار عليك أولاك إبراهيم دارك جزاك يا قل إبراهيم مولاك سر خير الجزاء ومنى داريك أولاك إبراهيم خير الجزاء ومنى داريك أولاك جزاك يا كل إبراهيم مولى سنجر خير الجدا ومنى عليك أولاك mbooloo mi nanu maase jóg taxaw ca ko màggal borom jasaaka saar ku ñu màggal borom jasaaka yàlla nga tàggoog bàkkaar ci barke sëñ Bamba ak jadaaka ya bil nga ibnu sar xayra jadaawa dari ka aulaka Sekhira masar jankin dula Masar dari غير الجذم سار داري كولاكا لك خير الجذم أثر دارك أولاد لك خير الجثم سار دارك أولاد لك خير الجثم سار دارك أولاد سر جنجال مولاك فلدفا ومنع إثار دارك أولا مثر جنجال إثار فلدفا ومنع إثار دارك أولا رمسر جنجال سخر الجزاء منا زار داري كاولا سخر الجزاء ومنى داريك أولاد حرب يا جبر حرب جبر أولاك خير الجزاء حزار داريك أولاد

فاعلم بأنك غريب أبدا ذاكر في دنيا وأخراك إني فردا أبدا ولا قريب دنيا وأخراك على لازم الدين والجارك محمد يا والإخلاص دار كيد المؤمن على لازم الدين

جان في دوان جان تنا بدا يا كايزا لن ماكل بابا جرل ماكل بابا جرل ماكل بابا جرل ماكل بابا وان تنا بدا يا كا يا رما شيخ برشار جان سيدي وان جان تنا بدا يا كا بابا gërëm na la bamba gërëm na la jiriwan jari dama fa daaka bamba gërëm na la gërëm na la bi jiriwan jari dama fa daaka dama jigéen ñu mboyal naanu nga bay ba ni ndee man nag sëñ Abdou Bass Diop la ñuy wax maay doomi sëñ Modou Diop soxna Sarr maa di xalifaam fii mu nekk nii ci jamono ji ma toll sëñ Modou Diop soxna Sarr it soxna Sarr mi ko jur mook Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ borom jasaaka ñoo bokk soxna Mati Jabel Diop moom maam Samba Mbodj Diop kon foofu laa bokkee njóobeen googu la soxna Fatma jub bu bokk waa kër sëñ Cheikh Cheikh Ibra Sall Ndiagne ak sëñ Modou Diop soxna ñoo bokk ndey ak baay Cheikh Ibra Sall Ndiagne mu jur Modou Diop soxna mi sama baay sama baay nekk jarbaatu Cheikh Ibrahima Sall Ndiagne ci li ma mag ñi nettali bu dee ci wàllug baay Sakko ki Diop la mooy baayam foofu la bokk itam ak càllalug boo ko toppee day topp day bokk ak càllalug Cheikh Modou Moussa Mbacké kon bu ndee wut ku xam ku ngeen xam ci borom bis bi mooy kooki moom nag yàlla daa dogal mu fekkee jamono sëñ Tuubaa fekkee itam jamono Cheikh Ibrahima Sall Njaañ dafa jaayoon njuréel gi jënde ko ak taalibe di leen liggéeyal ñëpp ñoom ñëpp borom jasaay kayit yàlla dogal na dafa njëkk wàcc liggéey sëñ Tuubaa loolu lu ma a xam la waaye bi mu wàccee sëñ Modou Diop soxna da ko desal ak sañ tubaa sëñ tubaa waa caati desal fi sëñ ma jëm soxna desal leen desal sëñ Touba desal Cheikh Ibrahima Sall Diagne kon noonu nii la demee kon jërëjëf ñu ngi sant euh, borom kër gi nga xam ne mi ngi koy enregistré di ko gërëm di ko ñaaral aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo leen di nuyu baax di leen sababu li nga xam ne moom moo ñu fi indi tey ci waañ wi kilifa gi nga xam ne mooy def màggal gi muy Serigne Samat jóg moom mooy ki nga xamante ne bii moom moo ñu fi indi boo ñu gisee nii ñu toog nag ñun ñooy waa daayira Ahibaawul Xaddiim li nusrati diinil xayim bu Serigne Moustapha Mbacke Mohamed moom sëñ Mbacke soxna Lo ñu jógee fii ci Taïf waaye ànd ak mboolem organisateur yi nga xam ne ñoo jógee ci section bu Taïf muy Taïf ak dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ko wër yëpp. ñu ànd ak ñoom at mu jot ñu ñëw di taxawu li nga xam ne moom mooy xew yi muy màggal gi loolu tey bokk na ci li nga xam ne mooy sababu maanaam ñuy teew fii ci bis bi at mu jot di jërëjëfal bu baax sëriñ Abdou samat jóom mi nga xam ne moom mooñ fi indi ci yaakaar ji nga xam ne am na ko ci ñun ci at mu jot mu wooñu ñu ñëw ànd ak moom bis bi waaye nekk fi di ko liggéeyal ba liggéey bi jeex mu yeewi ñu ñu delluwaat ci kër ya loolu bokk na ci sabab bi nga xamante ne bii moom moo ñu indi ci màggal gi saa sune ba tey ci waajtaayu waañ woowu nga wax it ni nga xam ne noonu lañ ko daan defee rek noonu lañ ko defee dal nañoo jóge Taïf ñëw fii ci waañ wi ndaxte ñun suñu liggéey lépp ci côté waañ wi la féete naam sax am na ñoo xam ne ñoo nekk fee ci kër ga yor wàllu bernde yeeg yooyu waaye li ëpp doole ci ñi ngay gis ci mbooloo mi saa yu ñëwee rek ci waañ wi lañuy ñuy jubali ngir maanaam mën a taxaw liggéey boobu noonu. niñ ko wajale nak noo ni fi ne yaa ñu gis ni ñu nek ci feejarum soble bi ak di wajal añ bi gis nga xalé yaa ngi ci ni inshallah allah bëgg nañ fe togg luy tollu ci 200 cent muy ñaari bari ko yo xamanteni mom lañ fa seené togg añ inshallah allah ci karam tu tay reer bi non na nga xam non lañ ko daan taxawé rek ci walu ay vermicelle ak yoy inshallah allah lañ ko fa seené défé ba di ñaan dal suñ borom dajal dajalé ñu ci ak ngeerum sëriñ bi waye tay ñu ñaan rek li nga xamne mom lañ ci bëgg lepp ngir mu soti suñ borom dimbali ñu taxawuñu ba liñ ci bëgg lépp ñu ñu matale ko ndax loolu rek mooy sababu li nga xam ne moom moo ñu fi indi pour taxawul liggéey bi ba mu ñoŋ waaye mu mel ni nga xamante ne bii tey noonu la war a mel loolu mooy sababu li nga xamante ne bii moo tax ñu ñëw fii. Ibrahimu mawla jazar xayril Ibrahim بارك جزاك يا كل إبراهيم مولاك سر خير الجزاء ومنى بارك أولاك إبراهيم خير الجزاء ومنى دارك جزاك يا خل رائب مولاك انظر خير الجزا ومنى عليك اولاك mbooloo mi nanu maase ñu taxaw ca ko màggal borom jasaaka saar ku ñu màggal borom jasaaka yàlla na nga tàggoog bàkkaar ci barke sëñ Bamba ak jazaaka ya xil زر خير الدوام داريك أولاك سخيرا مسار جنكين لبلا زر داريك غير داريك أولاك

زار جان جان أولاك فلدفا ومنا إزار دارك أولاك زار جان إزار فلدفا ومنا إزار دارك أولاك رمسان جان كن جنولا سخر الجزاء ومنى زار داريك أولاك خير الجزاء ومنى زار داريك أولاك خرج جبر خرج جبر أولاك خير الجزاء زار داريك أولاك

بسم الإله ينقل